bi nga xam ne ñu ngi koy wax euh, ci ci nga xam ne mooy nabu Leye mm. donc sëgg euh, mbirum yoon la xam naa dañuy jéem a woo mm. ku ku nekk ci yoon te liggéey ci yoon waaw parce que je crois que ñoom ñoo gën a apte pour parler pour mm. donner la bon information donc si tu permets xam naa dañ koy jéem dañ koy jéem loolu mooy ñun fi lu leer la ñu bëgg waaw waaw waaw waaw ci youtubeur sàngam wax na nangam. kee wax nangam déedéet. Hmm. alors sëñ Bour yow balaa la da ko ñu koy jot est-ce que yaakaar nga ni ki information boobu euh, lu lu lu lu dëggu la. waaw bon man ci ni ko Sénégal yëpp déggee laa ko déggee. Hmm. mais comme gisuma lu hmm. koy firndeel. du këyit gu koy firndeel. Euh, sëñ Bour ah maître ah waaw ñu jël maître. allo salaamaaleykum. attendez bonsoir maître yaa ngi ci jàmm alhamdulilah bon dañ la yaa ngi en direct euh, ci Bprod Média donc euh, dañu bëggoon juste euh, benn leeral bu ndaw rek par rapport ak information bi nga xam ne ñu koy véhiculer ci toile bi comme quoi euh, Nabou Leye il se peut que ñu ñu libéré ko ñu buggoon xam ndax loolu est-ce que mën na nekk tout en sachant que ni ki dossier bi ba léegi waxuñ ci dara lu leer amagul procès ni rien est-ce que possibilité am na pour ñu libéré ko pour euh, ci moment bi maître d'accord <laughs> maa ngi lay fay maître fay nañ la donc euh, d' abord pour tontu si loolu yi faut d' abord nit ñi xam tamit lan mooy phase d' instruction. d' accord. waaw phase d' instruction mooy phase bi nga xam ne moom mooy préparer jugement mooy préparer procès mooy juste phase bi njëkk a ñëw avant procès bu ñu jógee ci enquête ba pare. ok. na ay demande yu se yu avocat wu parti yi di mën a def ci biir d'accord moom muy waan ay ordonnance mais ci ci bi moom li mu wax ci juge bi bu fekkee loolu la bi dafa jeex ok parce que ñoom dañ leen inculpé bu ñu laa génne tant instruction bi jeex wala ñu demandé la liberté pro wala ñu demandé la liberté provisoire d'accord waate si ci crime sax doomu sax genre liberté provisoire xanaa mu am circonstance bu grave boo xam ne maladie la wala boo xam ne dafay atteindre sa santé balaa euh, mm. instruction bi di jeex. d' accord ñu mën mais tant que jeexagu. Mm-hmm. bu nag lay def ordonnance de maanaam enquête am jeex na. Mm-hmm. mu ne léegi ñii ma ñii ngeen ma indil. Mm-hmm. bu fekkee ne que euh, indice yi ngeen ma jox matul preuve day rendre ordonnance de non lieu. d' accord en même temps mu mu libéré ñi ñi nga xam ne jàppoon nañu leen ñi nga xam ne mënuñu leen laale wuñ ci wala taxuñ ci ñu def même bu ñu jàppoon seen matériel di statuer waale dans la même euh, dans la même dans le même instant mu mu mu joxaale leen seen i bagage wala ila mu ne léegi ñii li leen doon wax qualifié nañ ko li leen doon toppee ñoo ko ñoom am na luñ ci laale preuve yi leer na Mm-hmm. mu mu def ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle ñu dem procès ñu jugé leen mais tant que jugement bi jeexul amee am ordonnance da ngeen di bi ñu waxatee loolu da ngeen laal ana ordonnance de non lieu donc il faut que ñu am ordonnance de non lieu exactement d'accord kon kon suñu suñu suñu déggee bu baax li nga wax loolu mooy information bi amul amul amul information boobu amul bu am wala na bu lay dafay waaj a dee foofu peut wala na bu lay demandé ko day waaj day waaj a wala mu am feebar boo xam ne dañ ko war a ah. demander liberté provisoire peut-être d'accord d'accord liberté provisoire mais fu bi pare na ci enquête kon pare na ci enquête kon day def ordonnance de non lieu pour ñi nga xam ne nee nañ laale wuñ ci donc ñu ci laale ñu def ordonnance de renvoi ci devant le procès kon mais mais kon kon kon euh, euh, juge bi pareegul ci enquête bi pareegul si enquête bu paree day def li ñuy wax ordonnance de règlement yi bu fekkoon ne que euh, ñoom laale wuñu day def ordonnance de règlement. d'accord mu ne leen ñii laale wuñu si. Hmm. informer procureur informer informer avocat wu partie civile ak partie les inculpés. Hmm. comme ça mu ne leen wala rendre na ordonnance de non-lieu pour ñoom léegi ñooñu di ñooñu dañ ko feeñ ñooñu si boppam ñoo koy feeñalal seen bopp. d'accord mais du ay waxu ngelaw. d'accord su fekkee nag nekk dañ leen war a jàpp tamit def def ordonnance de du def ordonnance de rejet day def la chambre criminelle. noonu yooyu procureur na sax euh, sañ-sañu def appel. Mm. ci même bi tamit am na sañ-sañu def partie si si si si ordonnance de non-lieu quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. ok donc donc euh, nee nga bu ñu defoon demande de liberté provisoire aussi euh, mënuñu leen ko may. Euh, sauf si bu fekkente ne na bu lay dafa feebar feebar bu métti <coughs> n'est-ce pas. de façon yooyu waa feebar bu métti boo xam ne mënuñu condition permettre ko mu nekk en détention mu nekk fa ok. en détention <coughs> d'accord te pourtant boobu après xaar dañu yóbbu si benn hôpital hôpital d'accord. ñu def ko surveiller ko foofu mais pour l'instant na bu lay yoon toppeewu ko dara wala yoon dafa am lu mu koy toppee maître. non moom dañ ko inculpé. nee dañ ko inculpé. su ñuy inculpé moom la ñuy def mandat de léeg-léeg eh, inculpé moo tax ñu defee mandat de dépôt maanaam ñoom indi yi ñu yor. Mm. wane na ne que ñii laale nañ ci mbir yi moo tax ñu def leen mandat de dépôt yu. d' accord donc le fait que ñuy wax amuñu benn preuve contre contre moom du du lu du lu du lu du lu dëggu. ah déedéet procureur procureur de la république di jàpp ay di jàpp ay ci ay coobareem pour tëj leen noonu pour comme ça. wala dégg naa fi sax ñu ne parce que dañoo xam ne laale wu pour protéger ko moo tax ñu jàpp. waaw waaw aussi ñu ngi wax protection waaw. ils ont d'autres moyens lii kay bu ñu xasee ba jàpp ko bàyyi ko kay ci lay gën a nekk un danger. parce mhm. nit ñi dañ naan peut dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko waaw dañ bàyyi dañ ko dañoo def yaa ma neex bàyyi ko bu d'accord ci lay gën a nekk un danger que su su toogee foofu. que su toogee foofu d'accord yaakaar naa leer na sëñ Bour ah? waaw leer na leer na maître jërëjëf. maître <laughs> merci beaucoup. merci beaucoup vraiment merci ci sa disponibilité ah. ok allez merci au revoir. Euh, ku moom micro bi sax. duudu moo duudu am alors sëñ Bour euh, yaakaar naa leer na waaw leer na leer na xam nga bon en fait mhm. euh, lii moo gën a moo gën a yenu maanaa mhm. waaw mooy que metre Mohamed Seye ñu di ko remercier mhm. di doom ci Ramatoulaye Lahi maître Seye maître Seye ku ne xamoon na ko Mm-hmm. nekkoon euh, avocat bu très réputé mm-hmm. bu ñëpp xamoon aussi mm-hmm. euh, nekkoon kilifa ci nguur gi nekkoon responsable politique aussi fii Grand Yoff lii wolof naan doom ju ne tëb tëb sa tëbinu bàyyi rek si moo wan ne ni que vraiment il est le son père donc gis nga li mu leeral mooy comme rumeur yi nga xamante ne que ñu ngi ko doon wax depuis démb Nabou Leye mën naa am ñu bàyyi ko te ci benn kuréelu xibaar waaw suñu ci ah. laas la jógee bu ma juum ah. bu fekkee ah, ne que ñoom mm-hmm. dama xam ne journal bu toll ni laas mm-hmm. pour man am na xëñ na peut-être fu ñu sukkandiku mm-hmm. bon pour joxe xibaar boobu mais jàpp ma ni que këru xibaar bu toll ni laas war nañu am euh, joxe xibaar bu toll noonu te amul fu ñu sukkandiku donc maître li mu wax leer na su ko procureur li tax mu inculpé ko Mhm. mooy dafa gëm ni que moom la procureur de la république que Nabou lii ñu koy toppeekat laale na ci. Mhm. moo tax mu téye ko voilà ci nii wala ci naa. Mhm. leneen li ci des nag mooy dafay approfondir peut-être enquête am pour xam yan charge la war a peese ci ñoom ak Nabou Leye ban rôle la ci joué. waaye li maître wax daal mooy Nabou Leye bàyyiwuñ ko tey. bàyyiwuñ ko ëllëg. bàyyiwuñ ko bu ñu defoon de liberté provisoire sax. waaw mënuñu ko bàyyi. xanaa bu fekkee waaw. mu nekk ci ci benn situation boo xam ne. mënu faa toog mais Mass Mass benn ince ak ni ñu ko téyee dañ ko téye ngir sécurité wu. Ah, mais moom loolu la doon démentir aussi ah. nee na loolu amul loolu ah, bokk ci. dafa am lu koy toppee moo mu inculpé ko. parce que man dama jàpp ni même bu dul dara. même bu deful woon dañ ko téewaale pour sécurité pour bañ ko ñu dóor ko wala genre nee na le fait que ñu téye ko nii ok buñ ko bàyyee ci lay gën a nekk ci ci insécurité parce que dinañ téye nii bu dee téye nañ ko bàyyi ko c'est parce que laale na si peut-être loolu moo tax ok ok comprendre nga donc xëy na dafa am lu ñuy seet ba léegi moo tax bàyyi bàyyiwuñu ko ci ci gàttal en tout cas merci beaucoup mettre ci ci ci leeral bi. Mhm. alors sëñ Bour daa mel ni fi mu ne nii war nañu mën a dugg ci waxtaan bi ah. waaw <laughs> léegi xam naa dañuy tàmbale. par euh, wax ci sorti bi nga xam ne Aziz Ndiaye euh, def na ko mu nekk un entretien bu bu am solo vraiment donc euh, nan nga gisee communication bi mu def ci làmb wala